waa sëriñ baa ngi ñaan ñëpp maa si déglu sëriñ baa ngi ñaan ñëpp maa si déglu na dindi écho bi waa noonu baax na ak waaw sëñ bi nee na tabaar sëriñ Fallu nee na sëriñ baa ngi wax nag ni asalaamaaleykum wa rahmatulahi taxala wa barakaatuhu sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké sa baay faal yi nee na ñoo toog nii jàkkaarloo ak yow seen jëwriñ ju baax ja di sa jàmbaar ja muy sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda Fall di maam Cheikh Ibrahima Fall moo yebal njabootam gi nee na ka ci njaboot gi di jëwriñ ji mooy Serigne Cheikh Fall mii moom Cheikh Modou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng ànd ak rakkam yépp nag ak njaboot gépp njabootu Cheikh Rafal gépp a ngi nii teew nee na kenn desul ñépp ànd na noog moom ñëw ànd ak moom ci ndawam lii mu yebal si ci yow ngir indi la siyaar bii mu lay yusri ak cant gi ak ngërëm yi nee sa bisu maam bii nga woote woon ñépp wuy si nañ ci waaye nag Mbàkke am nañ ci lu kawe sunu njort ndax bis buñ mas a fekkee bis bi mel na ko borom bëggee wala mu mel ni nga ko bëggee bii mbakke raw na bis yooya ànd na ak cant yu kawe ak xéwal yu rëy ak ngërëm yu màgg sëñ bi nee na nag mi ngi yeesalaat ak taalibeem di jébbalewaat boppam moo njabootu Cheikh Rafal gépp nee di la xamal ni la maamam ja ñaanoon sa maam ja nee na mi ngi koy dollee ñaanaat mooy di gën a bëgg sëriñ Touba rek di gën a bëgg sëriñ bi rek nee bu ca dara dolli koo mooy jekku ay ndigalam ndax ndigal rek moo nu fi bàyyi jekku ko mooy tax ñu mën koo jëfee nee kon Mbàkke ñi ngi ñaan nga ñaanal ñu ñu jekku ndigal li nee na ginnaaw bu loolu jàllee nee na ñuy ñaan nag ñaanu njaam yàlla mi nga xam ni nee na fu mu toll bëgg na ab jaam di ko ñaan nee na kon sëñ bi nee mi ngi ñaan suñu borom moo njabootu Cheikh Ibra Fall gépp Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yokk sa fan wi ca dolli sa wér gi ba li la Serigne Touba di liggéeyloo nga defe ko nu kawe sa Mbàkke yow nga defe ko ni ko bëggee ba am ci ay ngërëm yu baree bari te yóbbaale murit yëpp nee mi ngi sant bu baax cay gërëm nee lan waxoon ñu ngi koy yeesalaat sa jëmm ji ak sa ruu gi nee na. bu tubaab doon multiplier duñ xam milliard nun ko mën a multiplier waaye sunu milliard yi luur sa genn ruu moo nu ko gënal fii ci àdduna Mbàkke moo gënal Sëriñ Tuubaa it Mbàkke kon ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom sunu ruu yi nan ko weccee sa ruu gi nan jaayante nan ak yàlla sunu borom nga des fi ten dem jërëjëf Mbàkke nee mi ngi sant bu baax a baax a baax a baax nee liggéey bi nag mi ngi nii nungul waaw teg na ko ci loxoom liggéey bi sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda di xalifab Cheikh Ibrahima Fall bàyyi ko ci màggal gi teg na ko ci loxol sëriñam sëñ Muntaxa waaw waaw nag yi ak giléem yi waaw sëñ Cheikh Mbacke nee na nag yi ñëw na ci Abdoulaye Senghor ak giléem yi waaw nee mbind maa ngi noonu. sëñ bi nee jërëjëfati rek. dimbali rek moo daa sant. te te te te te tey tey jii daf cee war a raw waaw ndax ndax ndax ndax dajante gi euh, waa kër maam fi. ak ñi nga xam ne dañoo jox seen seen bopp xasida yi euh, maam Cheikh maam Cheikh mu mag mi ngi fii mi ngi ci kër gi. Euh, loolu loolu li ma ko mën a gisee. moo di tey jii dafa mel ne. iman ak islaam ak ihsaan dañ ma gane si waaw ah, noonu noonu rek laa ko gise noonu noonu dong laa gise ndax kon yoon yoon bi yet yet yooyu rek la ah, kon nag kon nag mel ne te ñu dañu dañu dañu dafa jëm jëm dañu dafa def jëmm ñëw ma waaw ah, loolu rek laa ko gise jërëjëf jëf alhamdulilah rabbil alamin ndokk bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa borom jox na ko lu jeex. lu jeex fii du jeex fële. ndokk bi nga xam ne eh, Sëriñ Tuubaa eh, borom jox na ko lu jeex fii jox ko lu jeex fële kon nag kon kon kon kon sunu xol sedd na ci yéen guy sunu xel yi daal na ci yéen rëtiix waaw waaw cofeel dafa rëy. <laughs> cofeel lu ne xëj na ci te nii fi nga ko tënkee eh, doy doy sëkk bëgg koo xam ne yemul fen waaw ak déglu ndigal luñ la digal nga def ko loolu tënk na lépp jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ jërëjëf sëñ Moussa koy tool kan sëñ coono bépp ci ñun ci ñun lay yem. kon lu lay sonal rek. kon Mbàkke lépp lu lay sonal. bu nu sañoon ñun Baay Faal du la ko teg. kon Mbàkke mbooloo mépp a ngi nii teew. ñaanalal ñëpp ñu dellu ca ndigal la. Cheikh mu Cheikh Rafaal nee na. Cheikh Moustapha mu Cheikh Rafaal nee na. dalaa bëgg a a si. doon laaj ndigal nag ba xam. kañ lay ñëw ak waxtu wu muy ñëw nee bu ñëwee waxaale la ko bu demee waxaale ko ndigal lool yi nee dalaa bëgg siyaar si xam waxtu walla fi ñëw ak kañ lay ñëw baax na Mbàkke gàmmu gi nag gàmmu gi gàmmu gi gàmmu gi mhm. mhm. a guddi nee na sëñ Muntaxa nee na sëriñ Amdi Fall waxtu bu ko soobee waxtu bu ko neexee bis bu ko soobee bu doon xaaji guddee bu ñëwee mu ubbil nee na ko yëg rek. gàmmu gi nee na gàmmu gi nag. joxoon na ndigal njaboot sëriñ bi joxewoon na démb ndigal ci njaboot gi. ndigal la mu la nga xam ne moom la fi fekkoon. mu yeesalaat ko. mu yeesalaat ko. wéyal rek. muy dem gàmmoo Cees. loolu la ca la fekkoon ay magam ay baayam tàmbali woon ko nee loolee mu fekkoon nag nee loole bëgg na ko wéyal nee joxe na murit yépp ci ndigal ñu dem gàmmoo ji Cees ci sa barke nag ak sa bëgg ak sa ndigal nee bu amee leneen ndigal def leneen rek loo ko digal sëriñ bi nee na ànd na ci ak moom sëriñ Muntaxa nee na ànd na ak Baay Faal dem Cees jërëjëf Mbàkke ne sëñ mu demee nag sëñ bi mu ñaan fii sëñ bi mu benn ñu bu ñu rek ñaanal ko na bu ñu guddi baax na bu ñu bëccëg baax na bu ñu rek ñaanal ko waaye suñu loxo ñun ñëpp fu waaye toll sëriñ baa ngi ñaanal sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mu jox ñi mu àndal ñëpp waaye doom yeeg taalib yi mbàkk ñëpp ngi ñëw sëriñ Moustapha Fall Falilou ak rakkam yëpp ñu ngi ci ginnaaw njabootu Cheikh Fall gépp ngi ñëw amiin mbàkk amiin amiin Mbacke amiin amiin Mbacke amiin amiin amiin Mbacke